man awuma benn problème presse bi waaye nit yi dañoo bari te wute man damay wax chaque fois lamb nattu la ci man waaye bëgguma wax dëgg yàlla ay bruit yu bari ak feeñ yu bari li may wax chaque fois te ku ma xam xam ko ci man ba tax na xam lu ñu may gis ci réseaux sociaux yi sax bariwul waaye tamit dafa am li nga xam dafa doxal ci diggante bi muy xaw ma combien de mois yi nga xam ni Covid bi daf fi nekkoon. xam ay sorties ak yooyu yu bari mënta am xam loolu la daal mais du question xam na ñoo maag ñoo bokk liggéey ñoo bokk liggéey ñun tey bu nit dugg internet tàppe ñu yàlla ak yéen la yéen a jël seen caméra xam nga ci wala wala yéen ay dem di tataan ay ay ay ay kàddu xam na ba tax na man mënu ma dem sans yéen yéen it mënoo leen dem sans man parce que ñoo bokk liggéey bi waaye loolu kese la mais wax dëgg yàlla aw ma benn. problème ak benn organe de presse. merci. ah combat capital ah combat bi yow yaa bëgg a def capital xanaa ah ah non la comme ni ñuy wax rek wax dëgg yàlla fi ñu jaar ci làmp defe naa bis moytul bis trop suñu kaw parce que yàgguñu lool lool lool ci làmb waaye am nañ fi taxusaan bu nekk suñu taxusaan bu nekk événement la. moo tax pour man làmb bi làmb comme làmb yëpp la rek mais ay làmp capital ak ay. yooyu noonu daal gëw ma ko daal combat la daal comme yëpp rek.